بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى
بسم الله الرحمن الرحيم sunu borom mu ne taaha moo xam lan la ci jublu ma anzalna alayka alqur'ana li tashqa ñun day wàccewuñu ci yow alqur'an ji ngiree ngay texee di illa tazkiratan liman yaxsha nekkul lu dul ak fàttali ñeel ka nga xam ne daa ragal yàlla tanzilan mimman xalaqa al arda wassamawati al ula mu nekk bu wàccee ñi jóge ca ka nga xam ne moo bind suuf ak asamaan yu kawe ya arrahmanu ala al arshi stawa yàlla borom yërmaane jooju nga xam ni ma nga dem daa di yemoo ca kaw arashamba ca na nga xam ne noonu la yeyoo ca nam fa tooge lahu ma fi samawati wa ma fi l ard mooy ki nga xam ni ñeel na ko mboolem li nekk ci kaw asamaan yi ak li nekk ci kaw suuf wa ma baynahuma ak li nekk ci diggante bi yëpp wa ma taxta sara ak la nga xam ne moo nekk ca la nga xam ne moo gën a suufee ca suuf am nañu tuddee sara mooy la mujj ca la gën a suufe ci suuf wa in tajhara bil qawl su dee da ngaa biral ci say wax wax ko ca kaw fa innahu ya'lamu sirra sa borom yàlla day xam ne li ngay li nga xam ne dañ koy yelu wa axfa ak la nga xam ne moom lañ nëbb ci biir xol yi kenn génnewu ko allahu la ilaha illa hu yàlla kenn yeyewul ñu koy jàmm ku dul moom lahu l asmaul xusna ñeel na ko tur ya nga xam ne mooy tur ya gën a rafet ya gën a sell mi ngi noonu jalla wa ala mbokk da ngay gis ne lii ñuy jàng nii boo ko déggee nga xam ne lii mënul jóge lu dul ci yàlla bal lu bari ci ulama wu sira dañu ne Omar ibn al-Khattab aaya yi la jëkk a jàng ci alquran loolu moo ko tuubloo mu dem dugg ci lislaam xam ne wax jii day mënul jóge abadan lu dul ci yàlla subhanahu wa taala sunu borom mu ne tooxa wax nañ ci lu bëree bëree bëri donte ni ne ñun lañ koy wax rek mooy yàlla moo xam lan la ci jublu sunu yenente sallallahu alayhi wa sallam gisoon nañu ne makka la ko yàlla yónni ay nijaayam ay bàjjanam ay xariti démbam mu woo leen jëme leen ci aljanna ñoo ëpp ci ñoom lànk mu wóor ko ne ku dee dem sawara loolee metti ko lool mu ci xalaat guddeeg bëccëg ba sunu borom di wax ne laallaka baaqiun nafsaka ah allaa yakunu muminin yow day yaa ngi xaw a rey sa bakkan ngir li ñuy xam ne gëmuñu ko gëmuñu la loolu di benn wàll gannaaw bi itamit diine ji da koo jële woon doole joo xamee ne nii sonn ci lool bu jibril dee wax ba ngay ànd ak moom mi ngi ci nekk loo xamee ne nii jéggi woon na dayoo ci jaamu yàlla waaye sunu borom yàlla na ko hey ay yow mi yàlla yónni alquran wàccewu moo ko ci yow ngir nga texee ji wàccewu moo ko ci yow ngir nga texee ji kon dalalal sa xol ki gëm boppam la gëmal ki weddi boppam la weddi bu coree sa bopp ñaareel ba yëpp sa jaamu yàlla gi équilibré ko loola taxit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan saytu xeet bi kum gis nga bëgg a ëppal mu arrêté la lim gënoon a bañ bokk na ci ëppal ay gars yi ñëw nañu ci moom ñii naan dootuñu nelawati guddi ngir dañuy fanaani naafila ñii ne dootuñu dogati bëccëg dañuy yendoo koor ñii ne dañuy won seen gannaaw seen i soxna yeneen ci bi alei salaam ne leen man day damay nelaw guddi di taxaw di naafila danaay woor léeg-léeg di dog léeg-léeg damay ànd ak samay soxna wa man raxiba an sunnati fa laysa minni sama sunna ku ko xeeb bokkoo ci man loolu ñu bàyyi ci xel bu baax su ko defee mbokk alquran ak sunna ngi noonu koo dégg ñu naan di doon wirdu boo def wirdul lu jóge ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam abadan askaaru yonente bi salallahu alayhi wa sallam njàngalam yonente bi alayhi sallam nga wirdu ko ba dof abadan waaye nag boo demee ci koo xam ne naan la na nga def seize mille yàlla ci fi guddi gu nekk ah cent mille yaa jabarut nangam nangam yaa nangam li daa xiri nooy def ba doo surma ne ba doo def gis ngeen su ko defee kon wàcce wuñu ci yow alquran ngir nga texee di alquran dafa wàcc ñeel ci ragal yàlla li man yaxsha alxashiya mooy alxawf ma al ilm mooy ki ragal boole xam-xam moo tax suñu borom ni innama yaxsha allah min ibadihi al ulama ñi ragal yàlla dëgg mooy ñi xam yàlla ay ñi xam yàlla xam mbugalam xam yërmandeem ñu nan noonu day jàngaleen alquran loolee dana nekk lu leen di jàddi alquran jii mi ngi jóge ci rahman loolu tax mbokk lu ñu ci sant rek yërmande la ba xataa li ci tubaab bi gën a bañ muy peine de mort suñ borom mu ne walakum fi lqisaasi xayaat ya ulil albab laallakum tattaqoon su ngeen bëggee am dund bu dal ba kenn du rey ku rey rey leen ko mu jeex am déet loolu moom mooy mbir bi su ko defee kon da ngay gis mbokk rey gi nga xam ne moo tasaaroo ci ñun ñii tey tey jii li presse bi mujj nekk li benn jeune boo xam ni nee na ay ay ñaari xale ñoo ñaari jeune ne moom ñoo sàcc portable am mu dem jëli paakaam ñoom ñaar ñëpp mu rey leen gis ngeen te d'après yenn journaux yi ñuy nekk li ñu ngi naan du ma dem sax kaso du ma fa tëdd sax fii moo waaye même bu fa tëddoon soixante ans yi mbokk julit ndax loolu mooy fayu ñaari bakkan nga ñëw bojj leen paaka ñu dee ndax sa fay même bu doon soixante ans de prison perfect à na la tëj à prison à vie ndax sa fay mooy ñu yóbbu la ci ab kaso ne la la la ngi nii di la jox añ reer ndékki ndax loolu mooy fayam abadan su ko defee kon ñu xam ne mbokk alquran mi ngi jóge ci rahman lépp lu ñu sant koor leen rahman aj leen rahma la génne zakat rahma la ku sàcc dagg leen loxoom rahma la ki njaaloo rey leen ko wala bu dee mufta say duma leen ko rahma la ndax tanzilan min arrahman ñi ngi jumale min man xalaqa ah samawati wal ard borom boobu nga xam ne mooy bind asamaan yi ak suuf ah bind asamaan yi kawe nga xam ne mooy arrahman bi nga xamee ne nee na ma nga ca kaw arasham ba mbokk julit istawa ci arab mooy toog sunu borom nee na dafa toog ca kaw arsham ba luy arsh arsh mbindaa fan la boo xam ni lii ngeen gis mooy suuf asamaan ngeen gis nii sunu borom nee na juróom-ñaari asamaan la sunu borom wax nañu ne am na kursi yi mu ngi ci kaw asamaan yooyu gannaaw loolu arsh rahman moo tiim lépp sunu borom bi ñuy jaamu ma nga ca kaw arsham ba loolu la julit war a gëm amma nag day gis ay ñoo xam ne dañuy jàpp ne arsu rahmaan mooy maxluqaat am na benn ku mag ku yàgg wax ci rajo yi ak télévision yi loolu lay wax bu ñëw arsu rahmaan mu ne arsu arsu la mooy maxluqaatu yàlla mi ngi ci kaw lépp ba am na ku ko laaj na ko waa man de damaa jaaxle dama am ñoo xam ne dañ naan dañuy gis yàlla mu ne ko waa déet loolu yéemewul gis yàlla yéemewul xam nga lu yéemee ci gis leneen lu dul yàlla loolu mooy yéemee naam ndax moom mbooloo ba mu bokk muy wahdatul wujud lañ gëm mooy yàlla mooy feeñ ci lépp yàlla mooy lépp loolee mbokk da ngay gis ne ay musiba la yoo xamee ne nii doomu aadama bi ko gëm kenn xamul lan muy atteen wallahi walilah alhamdu wal man gis nañu ne mas naa cee daje ak ñenn ci ñoom keroog ba ñuy daje jataay ba la ma leen jëkk wax mooy xam naa ne daje wuñu pour juboo pour pour déggoo abadan moom la ñu déggoo ndax ay nit bi ngeen bokkule base mu ngi leen déggoo kii nga xam ne jàpp ne ne portable bi sax yàlla la ah yow lépp yàlla la kooku ni ngeen di déggoo ñu ngi noonu donc ne débattre nañ ci effectivement deux heures à trois heures de temps xëy na mbooloo ma ñu àndaloon rek lañ bëggoon ñoom ñu am luñ ci dégg waaye mbokk nañu xam ne ak ndaf waxuma kéysar de ak ndaf mun ta passé te loolu ko mel ne al Cheikh Fawzan Barabi Sadine moo koy wax nee na ndaf yi gënoon ndaf ci daf mooy ci gëm wax ne mi ngi noonu ki gëm ne yàlla mooy lépp su ko defee kon arrahman alal arshi istawa ma nga ci kaw arsham ba léegi nag ca jamono imaamu malik mas na toog di waaraate benn waay dugg ci jàkka ji ñëw na ko waaw imaam waaw yàlla moom nu mu tooge ca arsham ba ñu ne imaamu malik dafa sëgg ñaqatooy xit gannaaw ba mu siggi daal dina ko al istawa maalum toogaay xam nañ luy toogaay wal kayfiyatu majhul amma nan la yàlla tooge loolu kenn xamu ko wa sual anha bida laaj laaj boobu loolu yow yaa ko sos daal dina jeunes yi fi nekkoon génnañ leen ma kii ci jàkka ji nitu fitna la kon mbokk dañuy gëm ne yàllaa nga ca kaw arsham ba nan la fa nekk xamuñu ko waaye gëm nañu loolu et que sunu borom boobu yowmal qiyaama nag suñu yàlla may ñu tabbi ak gën a daan jàkkaarloog moom yàlla na yàlla boole ñu si ñooñu borom boobu subhanahu wa taala nag ni ma nga ci kaw arsham ba waaye moom mooy ki nga xam ne mboolem li nekk ci kaw asamaan yi mboolem li nekk ci kaw suuf moo ko moom ak li nekk taxta soro mbokk sunu suuf bi d'après les scientifiques la ñu wax nee nañu am na rayon bu six mille kilomètres masalan boo ko bëggoon a bët bala nga yegg ci digg ba da nga daw six mille kilomètres ñu ne nag li ci sedd doomu aadama mën ko jege loolee mi ngi nekk dix kilomètres la ca des lépp kon lan la buuru sawara la boo xam ne yàlla xam nu mu toll mu des cinq mille neuf cent quatre-vingt-dix kilomètres loolu sunu borom lam fa denc moo ko xam mu ne taxta sara moo xam ne nekk ci suufu suuf amma nag na ngeen moytu sunu yenn téere yoo xam ne yàqkat yi lislaam yi ñoo ko dugal ci biir lislaam sunu mel ne chronique de Tabari yi yéen ñi jàng français dañ naan la suuf bi benn yëkk moo ko yenu yëkk boobu mi ngi nekk ci kaw ndox mi ngi nekk ci kaw ndox loolu ay xurafaat la yoo xam ne dañ koy def ngir yàq pas-pasu lislaam ñu ngi noonu borom boobu nag ne yow day boo waxee ci kaw dégg na ko boo waxee ci suuf dégg na ko loolee kuy julli rek gëm na ko am déet ndax yaa ngi taxaw di wax ci kaw allahu akbar waaye boo sujjati yaa ngi wax ci suuf waaye sunu borom mu ne gannaaw loolu li nekk sa biir dënn sax xam naa ko looloo tax xataa mummu yi nga xam ne jàngal nañu leen xam nañu dañuy julli du ñu wax waaye li nekk seen xol yàlla xam na ko loolu it kon lan lañ ci mën a dégg mbokk yàlla soxlul intermédiaire am déet ndax intermédiaire moo ko xam ne da lay jottalil waaye ki nga xam ne boo nekkoon ci biiru jën ba comme yunus alayhi salaam boo nekkoon fu gën a nekk ci kaw asamaan ci kaw suuf foo mën a nekk boo ne yaa allah dégg na la mi ngi lay gis mi ngi lay dégg ndax kii soxla ne intermédiaire sa digganteeg moom abadan mbokk loolu jërit nga la waay bu leen ko def fa innahu ya'lamu sirra wa axfa moo tax borom bi ne mooy ki nga xam ne yeewul ñu jaam kenn ku dul moom te it tur yi gën a sell yi gën a rafet moom la ñeel ndax doomu aadama dafa bëgg changement moo tax yàlla feeñoo ko ci melokaan yu bari da ngaa bëgg a jégalu say bakkaar yàlla mu ne moom mooy al tawaab al ghafaar ah mi ngi noonu da ngaa bëgg a ñaan mooy al mu'ti mooy al wahaab da ngaa bëgg ku la dimbali mooy al aziz mooy al wakiil ila axiri ila axiri mooy mboolem loo soxlawoo ci yàlla am na ay tur yoo xam ne ñoo méngoog tur yooyu sunu borom mu ne walillahi al asmaul xusna fad'uuhu biha tur yi gën a sell ñeen na yàlla day leen ko woowee ci tur yooyee loolu kon mbokk dañuy gis ne moom la sunu borom ubbee saar bu mag bii di suratu taaha
وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إن إنك بالوادي المقدس طوى
sunu boroom jalla wa ala mu ne wa hal ataaka xadiisu Muusa amul ndax dikkal na la waxtaanu yeneen fi yàlla Muusa israa naara ba muy gis sawara wa fa qaala li ahlihim kusu mu ne njabootam nga xaar leen fii inni aanastu naara man day seen naa sawara laalli aatikum minha bi qabas mën na am ma indi leen jëlee leen ca li nga xam ne muy aw gilit gilit mooy bant boo xam ne dafa am xal ca ca cat la aw ajudu ala naari huda wala ma fekk ca sawara boobee ma am ca ak njub ay ku ma tegtal ba wan ma fan la yoonu Égypte nekk falamma ataaha nuudiya ya Muusa bam dikkalee sawara wa ñu daal di koy woo na ko e yow Muusa inni ana rabbuk man day may sa boroom faxla na alayk suñ ñun say dàll innaka bil waadi al muqaddasi tuwa yaa ngi ci xur wu sell wi nga xam ne muy tuwa mu ngi noonu donc suñu boroom mu ne ndax dikkal na la histoire Moussa na am saar bi ñu génn am na luñ ci yàlla junjoon te mooy niñ ko waxoon woon rek suñu boroom alquran da lay junj fi benn dara mu xaw la jaaxal nga dem nag mu léeral la ko feneen jàngoon nañ ba mu naan waskur fil kitaabi Muusa innahu kaana muxlasan wa kaana rasulan nabiya wa naadaynaahu min jaanibi turul ayman wa qarabnaahu najiya wa wahabnaa lahu min rahmatina axaahu haaruna nabiya loolu ci saar bi la lañ ko jàng bii ñu génn tey nag sunu borom mi ngi lay détaillé daanaka ba baa taaxaa di jeex ah sunu borom ci histoire Muusa la lay wax ndax dikkal na la histoire Moussa Moussa jóge na Madiana daa di jëm fa nga xam ne moom mooy Misra ci Égypte bim ñëwee ba ci yoon bi mi ngi ànd ak soxnaam ñii ne ak doomam ñii ne sax ak benn boy bu mu àndaloon léegi ñu réer bi ñu réeree Moussa daa di ne njabootam toog leen fekk ca kaw montagne bi sunu boroom won ko fa sawara buy takk mu ne sawaraa nga nele xaar leen fii ma dem indi fa bant boo demee ci beneen faar sunu boroom mu ne la'allakum tafsaluun Moussa fekk njabootam gi sedd bi jàpp na leen mu ne ngiree ngeen man cee jaaroo danaa leen indi bant bu ngeen jaaroo wala ma fekk fa koo xam ne dana ma tegtal yoon bi ñuy jaar ba mu mën a gindeeku loolu ba tey mbokk doon xéewal yu ñu yàlla defal yu ñuy war a sante ma gars yi nag xam ngeen tukki tey boo koy comparé tukki démb su maam yi nga xam ne dañ leen fital ci àll yi rek rek ñu bëri xattaa suñu réew yi booy dox dëkk ak dëkk dañ daan dem ci àll garab goo romb fàq bat garab goo romb fàq bant ngir ëllëg boo réeree mën a xam fooy jaar ba dellu siwaat xoolal tey waxuma jóge fii dem Saint-Louis wala jóge fii dem Casamance waaye da ngay gis ak sa mbokk julit boo ndékkee loolu léegi-léegi ngeen mbokk ndékki balaa gee jot nga téléphone ko mu ne la ah maa ngi ni Madina wala maa ngi ni Makka am déet loolu mbokk di xéewal gu rëy gu ñu sunu borom yàlla defal yàlla ñu boole ci ñu koy sant amma Moussa jaamu yàlla bu màgg bee rasulullah bu màgg bee ña ngi gis mi ngi ànd ak soxnaam ci digg àll bi mi ngi réer mi ngi sedd amuñu lu ñuy def ba mu naan maa ngi dem fële uti sawara bu ngeen jaaroo borom boobu subhanahu wa taala nee na bi mu dikkalee sawara bi rek ñu daal di koy woo ci ka woo mooy sunu boroom daal di na ko ay Muusa man maay sa borom yàlla maay sa borom yàlla léegi summil say dàll la loolu ko mbokk sunu borom wax nee na mi ngi ko woowee ca garab ga loolu it boo demee ñooñu ma doon wax sànq naan yàlla yàlla naan waaw di garab gi nee na ana rabbuk garab gi nee na may yàlla lu tax nga bañ nit ki ne may yàlla waaye mbokk dañuy gis ne garab googu bu doon te li yéen ni ngeen ko déggee nii may yàlla kon yàlla la lu tax Moussa ñëwul di jaamu garab ga ndax mas nañ gis fenn fu Moussa demee di jaamu garab googee wala tey jii tey boo jëloon sa portable bi nga muudu ma nekk États-Unis na la diw nga ne waaw mu ne mën na muudu kon dañ naan léegi portable bu muudu la ah déedéet abadan mbokk julit kon sunu borom mu ne moo ko woowee ca garab ga daa dina ko man may sa borom yàlla léegi suñu say dal suñu say dàll yooyu tax na ba tey Sénégal ak feneen créé nañ seen i pàkk yoo xam ne nee nañ pàkk yu sell la kenn du fa dugg ak dàll ah am na fii ci Ndakaaru am na dëkk yu bëri yoo xam ne day nim ndànd fooy fooy gu yaatu ñu ne la woo suñu say dàll de fi kenn du fi dugg ak dàll te mbokk dañuy gis ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daanañu wax ne lii di yahuud yi ak nasaraan yi day daawuñu jullee seeni dàll yéen kenn ci yéen bu ñëwee ci jàkka ji ne wëlbati ay dàllam su ci gisee sobe jarul muy dem di ko raxas na ko pomp ci suuf rek dugg ak moom julleeg moom ci jàkka ji su ci gisul dara na dugg julleeg moom ci jàkka ji ndax yahuud yi nasaraan duñ julleeg jàkka ba nga xamee ne bu dul woon ak mboket yi ñu lal ci jàkka yi tey da ngay gis ne la gën ëpp tuyaaba mooy nit ki boo ñëwee nga julli ak say dàll moo ëpp tuyaaba jullee tànku neen loolu ñu bàyyi ci xel bu baax ndax yonente bi alei salaam moo ñu ko digal loolee mi ngi noonu su ko defee kon summil say dàll yaa ngi ci xur wu tedd wi nga xam ne mooy tuwa te loolu kon mbokk julit nañ ko doon waxee ci kii passé xam naa incha allah dañuy ñaan yàlla subhanahu wa taala fekk nañu alarba ji di ñëw ñu xam sunu borom yàlla naka lay mujjeeg jaamam bu mag boobu di Moussa alayhi salatu wassalaam yal na yàlla boole ñu ci gëm ab téeréem te tegginoo ak i téeréem mu boole ñu ci ñi muy teral àdduna ak alaxira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad ala kulli xaal doomu aadama bi su dee dafa am luy génnee ci yow dara nekkul ci nga jël sa mouchoir daal di koy dindi doonte ne ne du ànd ak lenn ni ko nit ñi di defee mooy fin ba jàpp jëpp di dégg abadan yonent bi salaa sallam daf ñu daan def même bu doonte ne ne ci biir julli la nekk muy ci sóor yi da daan jël mbubbam daal di wàññi la nga xam ne mooy baatam su ko defee ñu xam ne nit ñi buñ dajee ci jàkka ji di julli lépp luy perturbé julli gi doomu aadama bi war na koo moytu loolu daal ñu bàyyi ci xel bu baax mën ngaa jël sa mouchar pomp lu àndul ak di def yenn bruit yi am na président de la république ndax mën na nekk ci Sénégal bu dee loi yi nga xam ne loi yi ceddo la yi ñu tubaab bi indi loolu moom lu mën a nekk la amma bu dee loi l'islam abadan jigéen duñ ko fal mu nekk buur ci l'islam jigéen du nekk imam jigéen du nekk buur ci l'islam mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah waaleykum salaam man dama feebar waa ji gént ne ñu feeñu ko ci gént gi ne ko diw de yi moom moo lay faj ci la nga xamee ne nii mooy nangam ak nangam ala kulli xaal su doon teni ne waa jooje dafa nekk ku doon kuy aji fajkat ñu xam ni moom feebar boobu ko dal kookee da koy doon lu muy faje loole mu gént ñu ne ko demal faju ci moom loole da ngay gis ne dara nekkul ci mu dem ci loolu dem faju ji ci moom ndax gis nañu ne gént boo xamee ne nii dañ ci yaakaar lu baax loolu islaam bañul ñu daal di koy doon lu ñuy jëfe xanaa kay fekk ne daf cee teg loo xam ni islaam da koo bañ ci ay charte yoo xam ne nii lu xaraam la wala lu loo xam ne nii lu lislaam sib la mais bu dee ne waa ji faj kese lay def te yow feebar bi moo la dal nga gént ñu ne la kat yow diw de moo la mën a faj dara nekkul ci nga dem faju ci moom mi ngi noonu allah subhanahu wa taala alam naam bismillah waaw
léegi bi ñu ko waajalee ba ñu waajal ko ba pare war ko jullee ngir denc ko léegi ñu daal ne moom kenn mënu jullee parce que daa ko jullee léegi ñu bañ ñu wax wax wax mu bañ kenn mënu jullee bañ ko yóbbu ko doon denc ko moom
ndax kii dafa faatu bi mu demee ba ñu war koo jullee nga jaayam ñëw ne déet kii musul julli kon kenn du ko jullee ala kulli xaal mbokk borom xam-xam yi da ngay gis ne dañu am ixtilaaf ci li ñuy tuddee taariku salaa taariku salaa mooy ci bañ julli bu dee moom dafa jàpp ne julli wóoru ko loolu moom borom xam-xam yépp gis nañu ne ab yéeféer la mooy da koo weddi amaa nag mooy bu dee da koo sàggane dafa sàggane rek du julli mais xam nañ ne moom jullit xam ne julli daa war a julli waaye sàggan na du julli loole da ngay gis ne borom xam-xam yi am nañ ci ixtilaaf am na ñoo xam ne yéeféer la am na ñoo xam ne déedéet dafa nekk jullit bu bon rek bu sàggan maadaama saxal ne la ilaha illallah muhammad rasulullah su ko defee kon bu doon te ne ni nijaay ya daa xamoon ci moom da ko doon wax jullit mu ne ko waaye julli du dara man julliwuma kon position ba nijaay ba jël la bala bala kenn waru ko jullee am naa nag bu mel ne lu ëpp ci jigéen ñi nga xam ne tey jii dañuy sàgg na rek seen diine lu bëri ci jeunes yi nga xam ne ñoo nekk ci terrain yi football ak yooyu dañuy sàgg na rek seen diine mais dañuy réclamer wu ñoom ay jullit lañu ko ci wax yéeféer nga bu mer kooku dañuy jàpp ne ku sàggan la rek donte ne mi ngi ci danger très très grave ku mel noonu bu dee bu tee ñu mën koo jullee wallahu subhanahu wa taala alam naam naam bismillah naam waaw waaw mu pour pour mu njabar ko ba muy joxe wala kulli xaal loolu lu am la quand même mooy kii la ne ndax jëkkër moom jëkkër ji da ko dul jox dépense bu doy ndax dagan mu dem njabar ko ba muy jox joxe dépense almuhim mbokk jullit te loolu jigéen ñi dañ koy def jigéen ñi dañ koy def ba maa ngi am sama benn waay bu ñuy wax bamba ñaan yal na yàlla dolli ko wér muy nettali benn sëriñu tariyaax bu mu dëkkaloon mais soxna si day jigéen ñi bu ñëwee foofu lu ne lañ koy wax effectivement am na si kenn ku mu koy wax muy sama jëkkër ku am xaalis waaye du ma jox dama bëgg nga liggéeyal ma ko ba may jox xaalis loolu mbokk lu xaraam la almuhim liggéey dem ci nit mu liggéeyal la ak lu mu la mën ne liggéeyal mbokk loolu lu xaraam la nga lay liggéeyal pour sa doom di am xaalis ak nga la liggéeyal pour mbokk daal doomu aadama nañu xam ne liggéey yi ñuy wax liggéeyu tariyaax lépp lépp lépp baaxul loolu ñu bàyyi ci xel bu baax am maa nag liggéey boo xam ne dañ ci juru lam lor keneen loolee moom da ngay gis ne musiba mu neen passé loolu mi ngi ne noonu Allah subhanahu wa taala alam ñu mujj ci mbokk wala doon tàllal ci gannaaw rek waaw waaleykum salaam jullee néew da ngay gis ne amul ruko amul sujud te en général duñ ko jullee ci biir jàkka yi ci mbedd bi lañ koy jullee na doon ci biir kuuru jàkka yi wala ca armeel ya loole jarul du sumi say dàll sumi say dàll bokkul ci li ñuy tuddee lu ñuy jullee néew sumi say dàll du ca dara comme jarul nga koy sumi ndax sumi say dàll amul lenn lu mu ca yokk su ko defee kon nañu xam ne niñ koy waxee jullee say dàll loolu sunna la yonente bi alei salaam lañ koo santoon jullee néew jarul ñuy sumi suñuy dàll yal na yàlla dëppala ñu sunna yonente bi salallahu alayhi wa sallam yal na yàlla yombalal ñu àdduna ak alaxira wa salallahu wa sallam ala nabina muhammad